président Ousmane Sonko ak le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye am benn texte boo xam ne nam ko intitulé wanewaat na jëmmal encore une fois que ne moom day bëgg-bëgg lu Touba di woote woo taalibe waaye turu bërëb bu sell boobu saa su nekk bu koy utiliser rek jëmale ko ci Diomaye ak Sonko da ciy boole ay kàddu yu réewande texam ba nam ko intitulé mooy le grand théâtre de Sonko et Diomaye à Touba maanaam niñ ko mën a jàppee mooy Sonko la woon comme ko comme si ñoom ñooñee mu dem ba foofu nit ñëpp di xool naka la ñuy defa ngir santale Serigne Touba bésam bilee waaye tanu ko woon mi ngi woon di compter ñaata mbalit la ñu génnee foofulee yépp nekkul ci leen lu dul fexe bay galgal saa su nekk président Diomaye ak Ousmane Sonko moo tax nee na lorsque Diomaye et Sonko se à Touba Il savait déjà que la présidence, lettre datée du 31 juillet, avait refusé d'accueillir les invités du xalif arrêtez ce cinéma moom loolu la jàpp nee na lettre bi nga xam ne moo jur coow ba Serigne Bass Abdou Khadre génn démentir ne boobu la bataaxal jugewul ci moom jugewul ci xalif bi itam moom Bougane jàpp na ne Diomaye ak Sonko xamoon nañ xel que boobu la lettre tontu nañu ci te bañ nañu ko moo waral mu jàpp ne Ousmane Sonko ak Diomaye ci cinéma la ay kàddu yu sell di ko taftale ak boobu lépp bërëb moom mi nga xool lu ñaaw lu mu ko mën a méngaleel ndax nee na Ce que vous avez refusé à Touba, vous l'avez pourtant accordé à Mélenchon, défenseur du mariage gay, et bientôt vous l'accorderez à Macron. Bougane nee na ñu bañal Touba mu di jël invité xalif bi yóbbu leen foofee ca King Palace moom nee na moom la ñu accordé woon Jean-Luc Mélenchon mi fi ñëwoon doon seet si Sonko moom mi nga xam ne dafay encouragé di défendre sa yub borom ñaari tur yi te du yàgg itam ñu accordel ko ki nga xam ni moo di Macron di président bu France ñoo ko gisandoo muy comparaison boo xam ne moom Bougane Gueye Dany koy def ci diggante ñoo xam ne ay défendre katu boroom ñaari tur yi lañ ak waa Touba kon Bougane attention car comparaison n'est pas raison mu toftal ci ne sachez que le Sénégal de Bamba ne sera jamais un bastion des frères musulmans tey Bougane ak a doy waar moom ba tey génnagul ci njubadi ak diabolisation bi nga xam ne nguur gi fi nekkoon démb moom la doon def jëmale ko ci Ousmane Sonko ak ñi mu àndal moom jàpp na ne ñile dañ leen a gàcceel moo tax mu ne honte à vous ngay joxe conseil nag nee na le bon musulman s'inscrit dans la droiture jub alors jubbanti ONAS c'est déjà un gros chantier pour la transparence maanaam Bougane nee na dafay conseiller Ousmane Sonko ak Diomaye ngir ñu nekk ñu jub la mu leen conseiller mooy jullit dafay tegu ci lu jub te loolee moo waral jubbanti ONAS moom jàpp na ne lu war a am la ngir mën koo leeral maanaam transparence ngir lu ni mel mën cee xam naka la fa demee loolu mooy kaddu yu Bougane borom tontu du forox kaddu yi mu yëkkati jëbale ko ci Ousmane Sonko ak le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye doftal ci waxi Touba Jean-Luc Mélenchon Emmanuel ba ci a war a def moo a dañ leen di bàyyee commentaire yi ci démocratie la ñu nekk ku ci nekk am nga ci sa xalaat AGT News